waxuma la sax sa ñu saaga Alaaji Malick saaga yoo xam ne ku ko dégg ne ndoo hmm. saaga naa Limaamu ak ni mu baaxee ñu saaga ko wax ko yu bon hmm. mu tasawi fu ne yëpp Sëriñ Tuubaa moom saaga yin ko saaga rus naa sax di tudd sax sëñ bi di di sax tudd audio boobu yu bon lu loo yaakaar ne waxuñu ko ko rek wax nañ ko ko mook Alaaji malik xeetu nit yooyu fu ñu jógee non xam nga xam nga fu nu jógee mooy xam nga dafa am ñoo xam ni dafa ci société bi la ñu bokk ah non ay gis nga dafa am sax loo xam li mënees ko wax ci rajo waaye ñun dofuñu man ak ma ma bu xaadim awa ba ñoom Abdou Mbacke Baara Doli ak ñi nekk ci biir xam lañ o ñooñu ñan lañ. Hmm. xam nañ leen bu baax. am na ci ñoo xam ne seen kilifaa ngi fii ci biir réew mi dëkk ci benn dëkku diina bu doy waar bu mag ñu ay Arabie Saoudite di leen financé. di leen jox ay koppar ñuy jéem a créer ay université di jéem a def lavage de cerveau. Hmm. bind ay téere dal ci kaw mag ñi ñi ngi fi. xam nañ leen ay attention dañoo nekk ci rajo mais man ak sama convergence boobu xam nañ leen man damaa bokk ci cellule de communication bi nga xamee ne. Hmm. ñoo yore affaire marché boobu la mais. mais loolu. saaga yu metti yoo xam ne stas dama bëgg a xam objectif quoi en fait. Euh, non c'est parce que tout simplement. xam nga tasawuf waaw xam nga dafa am lu ñu tuddee tasawuf tasawuf benn. benn branche la ci wàllu lislaam ku mel ne Serigne Touba ci la bokk Alaaji Malick mm. euh, euh, ñu bari ñoom Seydina Limaamu Cheikh al Islam si Ibrahima Niass maam Khalifa Niass Alaaji Niass ñoo ñëpp ci lañu bokk xaadir yi ci lañ bokk euh, képp koo xam ni kii daal da nga yore kurus kurus laa wax de di tudd yàlla am kilifa gu lay orienté di la teg ci siraatal mustaqim foofu nga bokk mm. Maroc am na fa am na Algérie am na Tunisie am na Mali am na am na Guinée Conakry Sénégal moom waxaale wu ko. Hmm. léegi nag dafa am yeneen obédience yoo xam ñoom dañoo jàpp ne loolu ay bidaa la ay am sëriñ yore kurus di wax laa ilaha illallah ñu ne tudd yàlla sax ñoom nee nañ dafa aram boo nee gàmmu ñu ne dafa aram loo wax ñu ne la yow génn nga ci diine léegi nag. sëriñ Touba te ñoom nee nañ diine la ñuy waxal. non que xam nga euh, sëriñ Touba dafa wax ci benn waxam bu ah, doy waar. non parce que ñoom loolu lañ leen def loo ci seen xam nga naar yi dafa am réewi naar yoo xam ni dañ lay dañ lay wëlbati jox la xaalis. Hmm. yow yow yow euh, idéologie bi nga yore toujours dañ lay jox xaalis dañ lay financer. Hmm. toujours doo nekk ci opposition. Hmm. toujours yow ñi ngay àndal rek mooy ñu nekk ci pouvoir yi comme ni comme yi dominé Arabie Saoudite. ba noppi. Daesh li ko formé ñun xam nañ ko état islamique li ko salafisme sax ci boppam anglais yi ñoo ko créé ñoom Abdul Wahab ak yu demee noonu xam nañ seen histoire moom seen kilifa googu ñu topp ak Ibnu Taymiya Ibnu Taymiya ci kaso la faatoo weddi weddi nit weddi nit ko tax daanaka ci la tax dundam lépp xajam alors ñoom Ibnul Arabi daf leen doon attaqué am ko fii bind benn téere bu mag saaga mag ñëpp Seyna Cheikh Ahmed Tidiane Cherif al Fatimi yi la njëkk a tàmbalee saaga ko léegi nag ñun ñuy nga xam dañoo bokk ci tarixa yi ah man may tiijaan waa tubaa di ay murit ñeneen ak ñeneen ak ñeneen xalif généraux yi mën noo jóg mais ñun ñi nga xam ne ñooy ndongo yi nag ñu ne sawaay taxaw leen kaay leen nag ñun ñu taxaw jàkkaarloog ñoom léegi nag bu ci gouvernement bi jógul li ma Mbàkke wax ci seen ci point de presse bi démb xama barki démb mën naa andi tooxi doon Sëriñ Tuubaa dane inna la si lam yax sa rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnal funun Sëriñ Bamba nee na nit ki lu mu jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng ba naan kë kër yëpp te ragalul yàlla nee na kooku amul xam-xam te xam nga ragal yàlla ca la ak yar ak ak yar ak teggeen di tegu moo tax ma ne inna si lam yaxsa rabbal alamin euh, laysa bi euh, laysa bi alamin te ñooñu li ñuy wax ak tooñ la moo tax euh, imaam Lamine Lamine Sall bu Louga maa ngi koy sant bu baax a baax sama frère la bu Aba sëñ Aba Sall léeg sax maa ngi moom ñu bañ a déggandoo ci ay kàddoog yooyu garawul mais wax na Lamine Sall dafa wax yu am solo ne ñoom boo nee boo nee boo tuddee daayira ah, ñu daal koy tuddee ñoom à conférence gis nga ni ñuy changé baat yi soo nee léegi wala haraka. soo nee léegi suñu sëriñ bi ñoom ñu tuddee ko amir ñoom manam baat yi la ñu soppi tey tey ci ci korité gi Lamine Sall def na benn audio bu amam am solo parce que li mu wax ci tàmbali bi dane ñi nga xam ne dañoo weddi sëriñ bëgguñu kilifa kenn du leen jiite seen ñooñu bopp ba noppi di saaga mag ñi mais loolu moo audio audio Lamine Sall. ñoom ñoom duñu duñu

toog toog di tudd yàlla mu ne mu ne loolu kenn waru koo def ak loolu li ci li ci wàcc ci borom yi xam-xam yu ci bind c'est-à-dire que ñoom yenn yi soxar la soxar léegi bu fekkente ne màggalu Touba dafa am nit ñi dem Touba wala ñu gàmmu am ñu dem Teewan wala Layeen Seydina Limaamu nit ñi taaliba yooyu fàq dem ñoom amuñu mbooloo ñu lànk ne loolu du fi amee léegi nit ñi mën nañoo fexe fexe ba duñ gëm Sëñ Touba ñu jàpp Serigne Touba wax ko ay kat astaghfirullah sax man ci baat yi ndax ndax audio yooyu man defe naa ni déglu ko sax dafa aram Saga yu gëna a bon alaaji malik ñu saga ko saga seenaali maamu Baye Niass moom dañ ko saga saga waa même bu fekkon tane sax ñu dañu nekkul ci ci dañu nekk ci safaan hmm. ci seen yar rek ci seen comportement ñu leen woon a saaga yaa ngee euh, yar dañoo yara di ko frot waaw ya nga tuddu yar naka lañuy def ba ba ba ba def ci ndaw ap yar ba nga xamne yenn yi du fa ag quand même xam nga guerre bi guerre idéologique la d'abord parce que l'islam ci boppam mu am cat mas naa la ko wax fii depuis yonent bi ñu denc ko sallallahu alayhi wa sallam la furon yi tàmbali ñii jëm nii ñii jëm penku ñii jëm sow kenn ku nekk nañ la bàyyi ak la nga gëm mais mun léegi nag yar moom yar ay jur gannaaw yàlla moo koy def ci nit say jur ñoo lay orienté mais bu fekkee da ngaa génn fii rek dem fu mel ne Arabie Saoudite wala bu am solo ci Tiwaawoon président na jamono yëlee xaw la ba léegi hmm. la wax na ko Tiwaawoon te parce que ñun li ñu nekk dañoo jàpp ne dëgg la te sawuf ca Madina la tàmbalee hmm. waaw oustaz nga baal ma kon euh, boo juddoo ba màgg te amoo pierre say waajur ton nen waaw am nañ ci masuliya bi dara am na ndax yàlla dafa wax ne euh, li ngeen di yonent bi sallallahu alayhi wa faral di wax euh, xale n'a pas demandé à naître kon boo demee ba jur euh, gone hmm, ba mu màgg te amul ab kon say waajur tooñ nañu la lool ndax ñoo la indi ci àdduna ba pare defuñu ci yow la war waaw léegi parce que kenn ku nekk ab sàmm nga te la ngay sàmm bënd ruhul adab bind ak fi dem ba nigeria yok fa tarixatu tijaniya nangam nangam nga jek jek nek xalé bu xonku turu xey yore sa ben ki rek wut say audio di di saga saaga man fofu dama ci and ak Lamine Sall a 100 ci attitude bu mu def ci jamono korite gi ak wax ji nga xam wax na donte sax Lamine sama grand la waye léeg mak mom ñu bëkkante mais quand même nit ku bax la quand même comprendre dal naa ko lool mais position bobu mu jël ba defoon audio bu ñun ñëpp dañ ci wara taxaw loolu nak mo waral sul marché bi ñun aljuma tey nag taalibe yi ñooy mars nun nun murit xaadir layeen tiijaan koo xam ni kii daal am nga cofeel ci Serigne Touba ak koo mën a doon boo doon dagg bii avion sax ajjuma bu ñu jullee jumaa ne ñëpp ñëw ñu jaar ci jumaa ji du Mbacké ngi ci li ci nekk ci ay kilifa damaa ne ci rajo bi waaye kenn xamul nu ñu toll man dama cee bokk parce que man damaa yàgg bëgg ak booloo ak ak ak nekkoo waaye nag bu fekkee ay gars yi dañoo jóge nag bëgg a samp ci réew mi bu leen neexee yu taxaw fi amul problème mais quand nañ bàyyi seen et dañuy def campagne bu doy waar dañuy def campagne idéologique sociologique ñëw di la jéem a corrompre naan la gars yi li ñu nekk nangam ak nangam xam nga lii euh, da ngay gëm yàlla da ngay ragal yàlla alors que musiba moo gis mu am ci àddina bi état islamique ko taal jamono yi ñu toll ban réew boo xam ne bii daange nekk fa wala salafisme te amul problème fu ñu dem ñoo nekk Nigéria ñoo ñoo jógee Arabie Saoudite dugg dugg dugg dugg Irak ñoo ne woon Syrie ah ñu partout un peu partout à travers le monde même mais quand ñoo ñooñu nañ bàyyi nit ñi ñu nekk seen jàmm di def ay attentat ñoo nekk Mali ñu dem bi ñu demee Mali lu ñu def fekk fa bàmmeelu mag yépp ñu toj ko ñu ne waaw waree su la dem ci bàmmeel di ko ziar Ibnu Taymiya ci boppam ci ay fata bi na ay fatawaay yu majmuul fatawaay bu mu bind man liir moom moom moo njëkk a tere na bu kenn dem ci ci ci raw do yonent bi fu mu ko teg parce que benn xadis boo xam ne bii euh, ñoom sax interprétation ba man damaa jàpp ne dañ caa juum donc par conséquent na ñëpp daal ajjuma daal 23 képp ku yeewoo ci réew mi te di tijaan ak foo mën a bokk moo xam Kawlax nga bokk moo xam foo mën a bokk Tiwaawan ak Ndar foo mën a ne rek na nga ñëw te yàlla yeggale nu ta ñu woon état bi rek ne gouver le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Hmm. parce que sinon li sama. doomu euh, ndey boobu wax maam Mbakke loolu mu wax noonu xarit Awa Ba ne affaire bi bu nu ko réglé wul <laughs> taalibe yi mën nañ cee dugg te bu ci taalibe yi duggee bu keroogee nag Sénégal beneen affaire lay doon mais sëñ mais mais Cheikh Bamba Mbakke kan la tooñ. yow eh Nicolas dama la koy laaj rek. kan nga mas a dégg ñu ne Serigne Touba ku ku mu tooñ gis lu mu bind lu mu tooñ. xanaa du moom sax la ñu tooñ. waaye dañ koo ba toñar bi ko ay xale yi jóg barki démb mais sëñ bi saaga ngeen baal ma ci kàddu gi. mais sagandey xam nga sagandey ndey ni mu bone hmm. astafurlah sax man mi koy wax hmm. loolu lañ wax alaaji malik wax ko sëñ touba légui nak ñun dañuy taxaw dañuy danañ suñ premier acte bi ñu njëkk poser moy mooy def marche suñu marché nak ba nopi nak dana ben memorandum mémorandum xam ne ko bind nous allons encore faire des conférences de presse

am mandul ci walu xam-xam mais bind sa téré daa di xas si ahmed tidiane shérif yi tudd cheikh omar fouti tal nga sago ko ci bir téré bi dan ñen seen diina yooyu le nga neena na neena kilifa diina yi duñ dem ci mbok mbolo mais di ñu comme ay weñ quand même wala wala wala bok ñun dañu jangul wala ñum alcorane di may alcorane di ñu jang ñom ñun dañ ko jangul le Moustapha Jaxate waxon sama sama sama mag ju bax joju euh, te nek Touba ne ñoom la ñu ba weddi mag ñi ñun lañu jang ba gëm leen ñun ñun dañu jangul alcorane dañ koo mokkalul dañoo jàngul hadisu yonent bi dañoo jàngul fiq dañoo jàngul siira dañoo jàngul taarix lan lañ ñu lan lañ ñu mën a jàngal. est que jàng yi benn la sax. benn mais mais da que est-ce que. alxuraan ji baqara ba minal jinnati wa naasi suuratul faatiha boo ko ca tàmbalee ñun ñëpp ko jàngandoo hadisu yonent bi li ci wér saxiixay nekk kutubu sittaak yooyu yëpp noonu jàng nañ mais ñun mais ñun du ñu ay du ay du ñu ay dof du ay jaahil dañoo jàng comme ñoom léegi nag bu la neexee mën nañoo ñëw nag ñu def débat d'idées ñu autour d'une table parce que ki bind bi kitaabu taqdis man woo 2S ne bom de mom mi bind ci loxo bopam na ñu def mais il a refusé lan la def dañ do wax naan na on n'a pas besoin de diw yow Nicolas so bindé sa téré amal fitu dem Sidi Lamine Niass alayhi yalla na ko ak Cheikh Tidiane gay yalla yalla len ñom ñaar dem nañ def benn émission ci téere boobu radd ko maanaam ñu ñu rejeté ko woo waa ji ne ko kaay ñu def debaa mu bañ sama xarit xalifa mbuub woo naa ko 2S mu def ci waxtaan ñu naan mu naan léegi euh, mënumaa ñëw waaye maa ngi leen di yónnee nangam man kii bind téere bi kay na tontu donc xam nga kaay yi vraiment dañ sonal nañ ñu. Euh, te ñu ci deful ndànk nag euh, ñun tamit am nañuy am nañ suñuy pexe bopp nag. est-ce que jàmm bi nga tudd sànq arrangé na leen. en fait mais parce que mu arrangé en tout cas bu leen arrangé wul it ñun moo nu arrangé ñun ci jàmm la dox état bi ci jàmm lay dox nguur gi ci jàmm ñun jàmm la ñuy woote mais ñun duñu ñun mu tasawifuuna yi ñun ñi gëm tariixa ñun du ñu saaga kenn doo dégg suñuy conférence ban tudd ci benn benn diw nit saaga ko man fii bu ma fi nekkee kenn ku nekk xam ne Alaaji Maalik lañ ma tuddee te ci tariixa Cheikh Ahmad Tijaani ak Chérif al Fatimi yi laa bokk di doxal seen ay principe ak seen i werd bés bu ne fii Serigne ay misaalam dama koy joxe yow gis nga ni ma mel ci sëñ Abdou Lahad mu mu mu baax mi mais mais man mais loolu lépp nag yow nga ne ko bërax sànni ko fële daan na léegi ñun Serigne Touba woo El Hadj Malick woo Baye Laye woo euh, ñëpp nekkuñu ci tus mais quand même bu nekkul ci tus nan nu bàyyi ci suñu tus jooju noonu ban dem ban dem ci yomal xiyam ba yàlla àtte nu. bu dee ñoom newuñu ci tus. ñoom ñu bàyyi ñun ñu ne ci suñu. waaw waaw nañu nekk suñu tus jooju rek noonu noonu nan nu bàyyi suñu keppaar googu nga xam ne ci la ñu màggee. te tamit weddi sa bàyyi mënta paase. Hmm. nga juddoo ci lislaam sa bàyyi ne woon ci yoonu murit ah, bëggoon Serigne Touba lool wala Alaaji Malick lool wala kenn lool nga màgg jàng ñetti téere ak ñeenti téere daan na ñoom ñépp dañ naan xam nga ñoom lu ñuy woy ay kufru dañuy def dañuy takfir takfir mooy ñun génn nañ ci lislaam xaarij min ñun diinul islaam hmm? léegi ñun ñun ñun ñun safara lañ jëm hmm? takfir seen wax yooyu ñuy wax noonu mais qui sont ces gens là bu fekkee ne nag ñoom dañu bëgg nag léegi affrontement. kon am na ñoo xam ne nga baal ma am na ñoo ñu xam ñan ñoo war a dem safara ak ñan ñooy dem. mais parce que ñoom loolu la def ñoom ñoom yàlla xamal na leen ko ñoom. ah am na ci association islamique yi ñoom loo ñu takk firal ko donc loolu daal maa ngi ciy sant ñëpp di ci woo ñëpp suñu marché bi eh, defe naa ne ci koor gi korite gi eh, eh, ah, imaam Lamine Sall ujoom boobu mu def defe naa ne moom ku am xel te déglu ko. wax dëgg yàlla ak waaj ji defoon euh, audio ba ci Australie xaw ma fan ci wàllu weer weeg euh, décalage 7 de temps yooyu dem noonu defe ne loolu ku ko ku ko dégg boo dee nit foofu moom mag Lamine sàll dañ cee ànd 100 pour 100 1000 pour 1000 ku ko jottali. ku dégg wax ji nga jot jottalil ma ko ko donte léeg-léeg maag moom ñu bëkkante. oustaz léegi lan lan ngay yóbbante euh, mbokk taalibe yi ñuy déglu rawatina ndaw ñi. waaw man dama leen di woo ci jàmm ak salaam. ñu bañ yàq ñun sax ñun loolu dépassé nañ ko ñun suñu marché bi amul yàq amul dañuy dox rek joxe suñu mem wax la ñuy wax dem suñu yoon en tout cas ñun dañoo bëgg réew mi nekk ci jàmm dañoo bëgg ñu respecteel ñu suñu kilifa yi respecteel ñu suñu mag ñi sëriñ Touba nañ ko bàyyi tout tranquillement Seydi Hadji Malick nañ ko bàyyi tout tranquillement loolu moo valable ci seen islam si Ibrahim Niass maam Khalifa Alaaji bàyyi laay ñooñu te turux yi daal turux yi xaadir yi waa Njaasaan ñoom Abdourahmane Kunte sama frère boobu la ñun ñëpp ñu ñu ñu ñu bàyyi nu ci suñu jàmm ak suñuy trop léegi nag ñun xeexunu xulóowunu bu fekkee nag dañu bëgg débat diine loolu om peut être mën nañ d' parce que man groupe yi ma bokk yu baree bari maa ngi ci bokk ak ay salafit am naa ci ñu baax ñoo xam ne ñi dañuy waxtaan ma ak ñoom euh, bokkuñu sax xëy na ay conception yu ñu am ci wàllu diine mais dañuy waxtaan di di werante mais après on trouve un terrain mais nag jékki-jékki yow diw nga ne dafa xaraam mutlax Serigne Touba nga ni dafa arab astaghfirullah sax ci kaddu gi ma wax man sans bop ah Serigne Touba nga ni baxul Alaaji Malik nga ni baxul ah lu wax nga ni takfir ah, mais quand même legui nak ñun ba xamé lolu ñu ne legui nak ñun nañ def sun point de presse def nañ sun conférence de presse dañu def sun mars aljuma ñi ngi fi wo Sénégal yépp wa Louga wa keur son assi malik ñu ngi leen tey nañ jël oto ñëpp ajuma ñëw euh, wa keur serigne fallu gi nek fofu wa keur serigne Abbas Sall ñoom Abdallah Sall ñoom Mouhamed Lamine Sall mi may wax ni ñoo ñëpp nañu ñëw parce que nag gars yi ku bàyyi raxas nag dana foq ndaba ah. hmm. waaw te nag fii lañ yemagun mais na gouvernement bi jël ay responsabilités am sinon <laughs> ñun aussi. E, tudd nga ko tudd tuddati ko dellu tudd ko. oui le bi ne jël ay responsabilités. il faut que l' état prenne parce que xam nga jàmm dafa neex. te état bi li koy arrangé mooy ni gars yi nekk ci jàmm ah. hmm. mais tey jii bu ñu fexee ba e, gars yi ñu mbëkkale leen e, attention. Ah. attention de te am na gaa yi taalibe yoo xam ne yi dañoo taxaw tem ne ñoom mbir mi da jaral na leen lépp mais man am na ay xarit yu nekk <laughs> Europe ci diaspora bi ay murit mais dañ may wane ma sëñ Maodo ma xamal leen murit yi moom ñun sax liñ ci libali murit yi ñoom kaay man dama cee da ànd ak ñoom ñoom moom Sëriñ ba jaral na leen rey seen bopp léegi léegi léegi léegi léegi léegi balaa tisbaar léegi nag bu fekkente ne ñoom xamuñu loolu nañ avancé rek. Hmm. nañ nañ nañ a tooñ gi rek. Hmm. waaw baax na bisimilah ok baax na jërëjëf jërëjëf yow Oustaz Maodo Faye hmm. ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax Oustaz Maodo Faye jërëjëfati